syndicat bi maanaam police gendarmerie ak dik ak waa Sénégal ak ñiy seetaan ak réew mi xam nga lan la gars di demander maanaam gaay yi lan la ni laaj di ko demander mooy Abdou Aziz Dabala lan moo tax ñu rey ko maanaam lu waral rey gi parce que tamit nan waxante dëgg man rey gi gaw ma ne xaalis la ay paasu màggal ak ah dafa am xaalis dama doon gàmmu jeg sama yaay dafa feebar déedéet am na lu laxaasu ci biir rey gi loolu lanu bëgg a xam mooy lan ndax nit dafa fay ay nit ñu sacrifier ko parce que dañuy soxla ay ñaan wala ku ñu sacrifier wala ku ñu def dara wala daal lan moo tax ñu war koo rey parce que paasu màggal dafa yomb trop affaire yi ay paasu màggal paasu gàmmu dama ko laaj xaalis nàngam nàngam ba fi ne mujj mbir mi Sénégalais yi bëgg na noo xam lu ko waral exactement feewu rey bi lan bëgg a xam rey bi nu rey Abdou asis dabalaa fee bi pour lan la ndax danoo bañoon Aziz wala dafa am lu laxaasu ci biir comprendre ma daal loolu nag polis dana ko lijjanti wala ma lijjanti ko rek. parce que cas bi dafa bëri ay version man mi sax version yu bëri la ci am police am ci version yu internet bi am version yu bëri ku nek am version yu bëri parce que cas bi mo graw ci bopam te dis lu wara ray bi feewu ray bi lan la feewu ray bi ci bopam Abdou Aziz la ray bin ko ray ni ba rayale domou jamour sacrifier ko pour lan la manam lan la nan ko tek ci fan lan motax ñu ray fee bi lan la mais du ay xaalis moom xaalis moom góoma ne moom la ko ay paasu gàmmu damaa war a màggali sama yaay daa feebar déedéet am na lu xew ci biir am na lu xew quoi léegi nag Nabou Leye yóbbu nañ leen retour de parquet retour de parquet moom xam ngeen ko dañ leen di dégluwaat suba wala gannaaw suba rek duñ leen yóbbu priso duñ leen yóbbu mandat de dépôt fi yooyu nekk lañ leen di yóbbu suusu tribunal bi sax am na ay ay kii ay genre néeg yooyu noonu ay genre plastique xaw ma dénk foofu la di tëdd rek ba procureur woowaat leen tribunal bi ci suuf tribunal bi ci suuf am na ay néeg yu ndaw yu am ay plastique waaw ay ay ay kii plastique yi walla ay ay genre dénk yi foofu ngay tëdd ban woowaat la retour de parquet retour de parquet nag bis bu amee ci biir dafa am lu desee leer yéen ñiy laajte lan mooy retour de parquet mais man gaw ne police ba tey déglu na Nabou Leye wala mu déglu yeneen nit ñi déedéet parce que Fallou Diop min ko indil te papam libéré ko Fallou Diop septième personne bi papam moo yenu ndeyam ba ca brigade ba daan leen salaamaaleykum monsieur la commandant mu ne ko ah mu ne ko Fallou ngi nii sama doom ci la bokk yóbbul ko enquêteur yi war nañ koo déglu fàllu te war nañ koo laaj sa digganteek Nabou Leye sa digganteeg kii ndax xam Assane Diaw loolu day jël temps ba nii may waxe ak nii man sama gëm-gëmu bopp Nabou Leye ñoom kenn dégluwu leen dañ leen a yóbbu retour au au parc parce que temps amul. léegi nag. lay mii nabu lay mii gaay reyul de ah ah nabu lay nekkul ne dafa ray Aziz de reyul de mais nabu dafa am lu mu xam loo xamante si nii bëgg koo wax moo yàngal mbir yi nabu lay daa am lu mu xam lu mu a wax soit que dañ ne wax boo ko waxee ñu rey la wala ñu rey sa yaay wala sa papa menacé ko de mort moo tax nabu munta wax loolu lañ ko jàppe mais Nabou reyul Aziz Dabala de complice bi mu ci mooy am na lu mu xam te mu war koo wax te waxu ko léegi nag Sénégal xam nga lan la war a am protection système protection des témoins comme li am fii Europe bu nit deewee man ma fekke ko sañ naa taxaw ne diwa ko rey ndax police damay protéger loolu amul Sénégal système protection des témoins autorité yi war nañ cee jóg ci Sénégal mu am fa bu ko defee témoins yëpp dañuy am fit mais Nabou Leye nu muy waxee so waxe maray la so waxe maray sa yaay ray sa papa rendi la wala maray sa dom ji nga xamne mom ngay namo ci dom ju jigen ji loy wax do saña wax di ni la ka bi demé nabu lay reyul Abdou Aziz Dabala ah ah waye xam nañ ray amna luma xam lu bari lu mu wax nabu nabu ban koy interroger batay day fen procureur di fen commissaire di fen gendarme boo nekkee lee biddiw la mu leer ko ne biddiw la fa la koy bàyyi naan la jant laak dafa leerul na bu nag li nu ko mën a naxtaane instant bi nii mooy police day jël ay gardam protéger ko à cent pour cent wax ko loo xam ne nii da koy permettre du deñ mu teg dëgg bi ci taabal ji mën a am jàmm ñu doxanday ñi rey Aziz ba pare bëgg na ñoo xam rey bi fee bi lan la parce que fee bi du xaalis de fee bi du xaalis de ay damaa bëgg xaalis su màggal dañ ko doon menacé ay soixante-quinze mille kenn du ci rey nit cinquante mille kenn du ci rey nit nan waxante dëgg am na lu xew bu dee dañ leen a yónnee pour ngeen éliminer ko pour benn sacrifice bu ñu def ndax beneen saa yi loolu day am sacrifice day am Sénégal ñu soxla deret buy tuuru deretu nit ku siiw wala deretu nangam ay nit financer xaalis bu nu ko reyee dinañ am li mais diw lan wara ray pour lolu soti lu ci mënti am waxal sama bat ci kaw kaa bi ba fu muy mujjé du xaalis kessé ah ah légui nak Sénégal dañu bëgg xam féwu ray bi lan la c'est quoi le but c'est quoi le but ni koy tubaab di waxee maanaam rey bii nga waray nii Abdou Aziz Dabala teg ci Wally c'est quoi le but mun ta nekk xaalis non non mun ta nekk xaalis déedéet du xaalis lan la maanaam but bi ngeen ko reyee fee bi lan la lu ngeen rey Aziz le bit la wala le bii c'est quoi le bi damaa déggul français nag sama xarit yi c'est quoi le bii ah c'est quoi le bii ah <laughs> la cause très bien yaa dégg faama la cause mais la cause de moo gën a yomb c'est quoi la cause non mais Sénégal nan waxante dëgg cause bi lan la cause bi tax ñu rey Aziz Dabala yëmuñu ci Aziz rayaale jarbaatam waali mais loolu pour lan la non loolu mun a nekk xaalis kese barki Serigne Babacar si cinquante mille kenn du ci rey nit soixante quinze mille mënut a nekk xaalis kese impossible looloo tax nag enquête bi yaatu affaire bi nekkul lu yomb de déedéet léegi nag Namou lay reyul Abdou Aziz Dabala déedéet reyu ko de yëkkatiwul paaka rey ko jëmul Abdou Aziz Dabala mën na am sax taxawul ci ci rey bi mais Namou dafa am lu mu xam. loo xam ne ba tey waxagu ko tribunal mu leer Nabou dafa am lu mu yëg soit que dañ ko menacé menacé papam ak yaayam menacé doomam menacé ko moom ndax Sénégal ni muy doxee moo baaxul gars yi nañ waxante dëgg dëkk bu dee révolution day sensé dëkk système bi bu dee dafa bëgg a il faut ñu am protection système protection des témoins nga xam ne tey jii bu nit sàccee wala bu nit rayee nit nga fekk ko yow di nga am sañ-sañu dem ne mom mo ray ni la démé ni lañ ko rayé fee leen ko jappé fële lañ ko dàqe ñu protéger la à 100% loi bobu dafa war a biir Sénégal système protection des témoins ni la dëkk di doxé mais dëkk boo xam ne wóorul yow da nga naan di waray léegi vingt heures vingt deux heures nga génn dee yaay fekk ji kan roy di a sàcc balaa guddee ñu def loolu bon Sénégal il faut ñu am protection protection bu baax faaw ñu am ko ci témoin yi kenn ñemewut a wax sàcc gi bëri na ray gi bëri na ah njaaloo gi bëri na kattante gi bëri na lépp bari te ku wax dee kenn ñemewut a wax kenn kenn ku wax ñu rey la nan nga tudd ñu jam la paaka for the